سلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام وسلي النية إلهي واجزينا أبدا أنا أنا المختار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لما نفعل والحمد لله لما فعل لنا الرحمن بالنعمة الرحيم بالعزمة الرحمن بالتجلي الرحيم بالتدلي الرحمن بكشف الأنوار الرحيم بحفظ ودائع الأسرار الرحمن بذاته الرحيم بنعوته وصفاته الحمد لله الكامل في كل ذاته الكائن في غماء غياباته الكامل في أسمائه وصفاته حدائق قام بشكره عينانها وسجدت لفضله أغسالها وترنمت طربا وتمايل عجبا لنفحاته يعرفه وبركاته وعرفه إنه لشرف لنا في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الصائحة الاستثنائية أن نزي أحر تحيتي إلى حضرتكم المجنون وأن نجلس أمامكم في هذه البقعة المباركة لهذه المناسبة الدينية مناس يعني مناسبة دينية ثقافية فنحمد الله الذي أزال دخان الشكر عن قلوب المؤمنين وطهرهم من شهوات النفس واليحموم ونصلي على رسوله الناهي عن طاعات المضرات الناهي عن تناول روائح المكروهات صلى الله عليه وسلم ginnaaw bi sant yàlla jul Seydina Muhammad ñu ngi leen jërgal jëf di nuyu sunu bopp ndax alquran daf ñu wax ni idaa daxaltum buyuutan fasallimu ala anfusikum ndax du fee ngeen may ma ma nuyu ñett nuyu imaam mu yóbbaale képp ku bokk ci dëkk yi nuyu Chérif Ibrahima mu yóbbaale képp kuy kilifa di sëb Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu Sidi Ahmed si mu yóbbaale sëñ Abdou Aziz ak képp ku bokk ci alxadratul malikiya nuyu sëñ Pape Khalifa tabaarakallah mu yóbbaale képp ku bokk ci daayira mbaa mbooloo mu toog ngir yàlla ak bis bi jotale nuyu suñu waaj suñu Abdou Karim ñu ngi fi teew ànd ak suñu jaam soo xam suñu sàng son maam Faama Fall ñu teewal njaboot si di Haaj Maalik bi te Louga ànd ak ñoom sëñ Abdou tabaarakallah ñu maf ñàndu maf ñàndu mooy lan waxtu daf ñu dënk ci trente minutes la ñu am war a waxtaan ci cigarette cigarette wolof dafa wax ne siin gi sikk la keex gi kéefër la raa gi reewande la taa gi tësay la dañuy wax ni kenn marewul woon cigarette almati ñett nag wala almati juróom soo ko gàccee ci paquetu cigarette te fa yoo weer lu ñu ñëw ñu ne siiw gi sikk la kaaf gi kéefër la raagee ne yow dana taajute say bokk la ñu tuddee ko adduxaan ñenn ñi ñenn ñu tuddee ko tabax ñenn ñu tuddee ko tabaa boroom saaxibu ishaaratu ahad ba taalib ci téere ni yu sammuunahu duxaana wal baadu tabaxatan wa baadun yunaaduunahu li jahlin bi taaba وبعد كل العرفان من بغض من بغضه لها يلقبها بخابة فقلا لخيبته نيانا ني امي عرفان خاي بيرت لا نكو تودي غير لان يغني تفاؤل لا كيب كوي توخ ريغات تي بيرت ما لاي ديف بروم امام نوفيتي تي تاريخا بي وخني ولا تسميها اخي بطابه نيانا بوكو تودي تابا تابا بوكو تودي ندخ تابا تورو سيدنا تورو مدينه فا يونتي بي دك بل سميها من خيبه بخابه لأن أصحاب مدينة الرسول فحرفوا اسمها بذاك بالمنقول tox nag tur yi ñu koy tuddee ñett la sëñ Mansour bu lay may weer dana la bu nangu tarixa bi nanguwul tox nanguwul muqi nanguwul mëq nanguwul fëyam nanguwul kiituwaale xeet yooyu lañ koy def maanaam xeet yi ma wax tox moom mooy bi ngay jël dañuy wax ni kooku ci koy def sax buy taal sigaret bi toskare àll ji toskare lay tàkk daan tos ni ko wedd naa yàlla fur ñu nag mooy def boo ko xëccee ñii ñaan ne ko moom la ñuy xëcc ñaar yoon lay xonq rek nga delloo ko borom mëq nag pon bi ko lokk def ko sa biir gémmiñ fëyam da nga koy yor da koy teg ci wetam rek yenn saa yi mu sëgg def ci li def si giwaat soo gisee mu yàq jikko te ñu jëm ca ndax araam naam dagan na amul ku ko bëgg te bëggoo ko sa kër benn mag doom ji day tux ñu wax ko ko mu xam ni su dikkee ni ko dégg naa da ngay tux da koy wet mu jógee marché rek si mu yére yi teg jël jaas ji teg ci kaw ni koy dégg naa da ngay naan sàngara léegi mu ne ko papa naan xanaa tux la la waxee nag mu ne ko waaw koy tux moom laa bëgg li jënd waaw tux moom laa bëgg li jënd parce que bu ko neewon dawe tux mu ne ko deere dañuy wax rek waye daf ne ko dégg naa legi da ngay naan saag mu ne papa naa sax xanaa lañ la waxe mu ne ko waaw tux moom nag laa bëgg xol xool ndax c'est vrai wala déet bo demé ci téré tanbihu ikhwan ala nusus al a'yan fi tahrim al dukhan abou bakr atiq moko def ci tariikha bi la bok mu ne na ngeen xam ne cigarette ñu ngi ko génne ci dixième siècle ginnaaw su sayidna ginnaaw sayidna gàddaayu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam كي خان موكو نديك اندي تي رومي اب انغلي لا كي كو نديك اندي تي مغرب اب يهود لا مي كي كو نديك دوغل ايجيبت مي تود احمد ابن عبد الله الخارجي راي كاتو نيت لا وون تور كاتو ديرات لا وون يسا ني لاج لا ني pourtant da ñoo gis sorti sans égypte yu bari dañu tok sa garab kon daganna sëñ si kon su ko defee am na ko ma laaj de mu ni ma ressortissant égypte caire yu bari dañuy tox parce que kon sigara dagan na ma ne ko ña fa génne te perte seen jikko ñoom ñoo koy jëfandikoo parce que cigarette fokk ñu layee ndax dafa xaraam wala xaraamul te boo ne araam na danga ko indi foo ko layalee te alxuraan gisuñu fu mu tuddee cigarette xadis gisuñu fu mu tuddee cigarette moo tax sëñ Mansour bu sëñ cher dama mës a dégg ci moom benn anecdote mu ni dafa dem Égypte benn xaritam bu mu nekkandoo woon fii ci daara ji ñu jàngandoo woon nee na mu dem ba yëg ni ma mais dafay tux léegi mu dem gane ji ko nee na ñuy reer mu génne cigarette taal ko ci wetam bi tox neena ma ne pat ñuy lekk suñu lekk rek nee na bëgg na maa wax ci cigarette bi ndax daga ba ma discuté ak mu indi ma ndax daga na wala xaram nee na ma kóone sama lekk nee ñu dem ba mu yàgg rek woo tàkk mu ne waaye sama cigarette bi yow doo ci wax dara mu ne ko sa cigarette bi lu ma ciy wax yow sa maam danaan naan sàngara daawul julli alaaji Maalik fexe ba say maamaat mu defar leen indi leen Ya am ci yow yaaka tax ci yow defar defal nga dem ba delu wat delluwaat delu wat ci sa la ci cosaanoon da nga delu ci cosaan ku delu ci nag man yëw ma mu ko ginnaan li ma wax tay saga ba sax ama gën a li ma wax mais ñi nga xam ne jógoon nañ pour daganal ko ci ay borom xam-xam sayyid Ali al Ajhuri ci la bokkon bokkoon ya allama sayyid Ahmad Baba Assoudani yi ñi nga xam ne nee na sigar dagan na ci la bokkon Seyda Abdul Ghani an-Naabulusi nee na woon ci ñi wax ni ci sigar dagan na ci la bokkoon boo demee ca Mayaara al-Haasid ibnu Asir ci ba muy ci euh, ca yax ba dafa wax ni lañuy ñuy jëlee ca seen wax ñoom dañuy wax ni te jëlee ko ci xadisu Tirmisi ibnu Maaja soloo ko mooy sallallahu alayhi wa sallam dégg nga lu lu dagan mooy lan bil xalaal maa axalallaahu bi kitaabihi al-aziz lu dagan mooy lu yàlla daganal ci téere bi tudd ko mu leer te wal xaraamu lu araam itam mooy maa xarama allahu fii kitaabihi li yàlla araama tudd ko ci téere mu leer léegi nag ba maa sakata anhu lu yàlla noppi yont bi nopp ci waxuñu ci nee na loolu te fàttewuñ fàtte wuñ ko min xayri nisyaan nee na loolu rahmatul lakum léegi nag ndax amul nas amul yax bu ci wax ñooña ca mayaara foofu lañ dellu ni kon ñoom dañu koy daganal ba am ñu ci bind way nit ushribat natt na naanal tuxal xalaalan tayiba wa daci safsaafa mimman azalak tuxal te waxu ñuy détail naan la dafa araam bu leen déglu innahu wallahi nabtun tahirun lakin al agrada tarmi bil halaki moom gàncax bu teey la bu naat la mais bëgg-bëgg yi nga xam ne nit ki moom la yor moo la yóbbu ci lu alkande am ku way ca loola ni wali naasi fii maa yaashiquuna matahibu nit ñi liñ bëgg am nañ ci seen féete waaye wa xikmatu rabbi fi ixtilaafi lmachaari bi nit ñi fi ñu wuute mooy seet lu neex ñu naan su ko defee pour ñu indi anam ji mu araamee ndax wax naa leen ñi nga xam ne te am na ñu ci génnaat daañu ko wax ci biir tam bi imaam Qasalaani yi dafa wax ci almawaahibu laduniya nee nañ borom xam-xam yi d' accord nañu ni cent vingt lor yoo xam ne ci sharia la dellu yi ci diina yi ci yaram mi ngi ci tabac mi ngi ci biir segaret moo tax ñenn ñi ci seen xam-xam egg wax nañ ni segaret moo gën a bon sàngara yegg nañ ci wax ni tuxkatu segaret bu ko deewaalee safara la jëm daga naan ma nag lu tax parce que nit ki boo ko waxee dara da nga koy wax loola nga ko wax fu ko teg ñu ne sàngara ki ko naan ci boppam la yem alquran nee na nañ ko dóor juróom ñetti fukki yar pour corriger ko mais cigarette daañu ñëw ci biir ci en français ñu wax ni am na ñoo xam ne toxuñu cigarette mais ñiy tox ñoo yàbbi saxaar si di leen ko xër ñoom ñañ koy xër ñu di ko noyyi mu leen di rey maanaam ñoom toxuñu mais toxkat a leen jege ëf saxaar si ñoom ñu noyyi saxaar si dee ah mooy tabagisme passif léegi nag ku rey benn nit safara nga jëm kooku moom ñëpp d'accord nañ wa maa kaana li mumin yàlla wax na ci alquran ni ay yaqtula muminan illa eh, eh, xataan wa man xatala muminan nag xataan fa tahriru raqabati ñaar la ñuy rey nit reyu tay ak reyu ñàkk tey yàlla ni soo reyee jullit te tey ko dafa am noo koy réparé kon yow miy tox ñu wax la ni soo toxee dafa am ñu muy rey te tayoo ko la wax mooy man maanaam tayoo rey gi léegi am na ñooy rey yow te ku rey benn nit safara nga jëm yow rey nga ay fukki nit maanaam yow sa mbir bu la yàlla jégul kenn mënut a tee nga dem safara beneen bi mooy reyu tey jàng nga ko liir nga ko nga tey tux bee xamoo ko woon tux nga rey nga bii nag xam nga ko tux nga reyati nga wa man yaqtul mu'minan mutaamidan fa jazaahu jahannama yàlla nee na safara nga jëm xaalidan da nga fay sax fiiha tey du tey yem wa xadiba wa laanahu wa aadda lahu azima kon loolu ci xel rek maanaam ci xel soo ko jëfandikoo rey nit yow safara nga jëm ndax foo leen di tuubee doo ko xam foo leen di baaloo ak doo ko xam maam Habib si bu Seydi Hadji Malick dafa dem ba benn moment am ay muqaddamu tarixa bi yuy tox sigaret mu taalif ci téere moom maam Habib tuddee ko radool ixwaani an surbi duxaan téere bu mag la maam Habib see ko taalif maam Habib si Euh, Pape Seydou Wele ci téeréem bind na ci ni wax ñu ci noppam ni maam Habib ñu bëri ñu ngi koy wax mais xamuñu turam maam Habib Cheikh Ahmed Tidiane la ko Seydi Hadji Malick tudd Cheikh Ahmed Tidiane la tudd mais maire yi ñoo daan amul abbas lañ ko daan wooyee maire amul labbu amul labbu jooju ñu taam wax nag sëñ Hadji Malick ni bu ñu naree sama tur soppe bi nag ma tuddee ko Al Habib ci kooku moom entre parenthèse la bu gàtt la fu ñu ropp mu ne nag la maa moom maam Habib nii la maa raaytu maa amat bihil balwaa mi surbu duxaan yi bi nga xamee ni tux yaatu na wa adami mubaalaati abnaai zamanina bi imtisaalil awaamir bi fiali waccinaa bi nawaahi bi tarkihi mu ne la maa raaytu muslimina alladina yantasibuuna ila tariqati al ahmadi tijaani yataaatuuna surba duxaani almaaruf bi taba moo tax borom saahibu taani sennaan fi naxari ahlil fitani wa duxaan ni wa kam muqaddamin bi zamani dégg nga wala abi summi wa bi duxaan yi وكل من كان على ذا الحال فإنه ضال وذو إضلال يا ويله إن لم يتب من الدخان يكسى غدا سرابلا من خطران موتاخ سيدي حاج مالك بيمي تالف تيرك ifham bunt bi jaani ci bunt joon ñaareel ba mu indi ci sigaret ne dama ciy barkeelu rek mais ñi jotoon bind bind nañ ci ba wax ba pare ba jàll kon naa ci junj waaye wax nag mbon yi ci nekk te daañu andi parce que tariqa du araamal mais yàlla mooy xaraamal léegi nag pourquoi ñu ni tarixa bi mooy solution bi parce que tarixa amul droit araamal lu yàlla araamalul boo demee ci misbaaxu saalik ku araamal lu yàlla daganal safara nga jëm ku daganal lu yàlla araamal safara nga jëm mu des nag ñu layal ko kon avant ñuy wax ci tarixa ci sharia mais avant ñu layal ci sharia nañ ko layal ci xel ba noppi soo ko dem ci wàllu sharia moo tax sëñ Cheikh dafa wax ne wa atyabu maa yakunu lil xaraam eh, maa yakunu xalaaluhu aqlan wa axbasu maa yakunu xaraam nee na li ëpp ci li nga xam ne sharia daf koy xaraamal xel moo ko njëkk a bañ ba pare sharia soog ko tere li nga xam ne sharia daf ko daganal eh, xel moo ko njëkk nangu ba pare sharia soo ñëw daganal su ko defee àtte xel mooy lan loo xam ne amul ci alxuraan amul ci hadis fukki dërëm boo ko séddalee ñaari nit ku nekk juróomi dërëm ngay am kooku boo nee nit ki da nga wax ko yàlla wax fan la ko ci gis soxlul muy dem ci alxuraan mu des attay aada ku boppam metti mu naan paracetamol mu sedd boo ko nee fan la ko yàlla bind ci alxuraan amu fa kon yooyu avant ñuy egsi ndax alxuraan indi na ko wala indiwu ko wax naa leen ko démb nee naa ginaar amu ci alxuraan lekk ginaar amu ci hadis amu ci alxuraan ceebu jën bu am bëgg amu ci waaye nag usul dafa wax ne waqad waqad euh, nuhu an diddi maa umira wa umira an diddi nëf yi fanta bi lépp loo xam ne sharia diglewu wu dagan naa def lépp loo xam ne tere euh, digle na ko contre tere na ko contraire ba dagan na lépp loo xam ne dagan na ko contraire ba araam na su ko defee nag ay aaya alxuraan leen di indil pour xam yii nga xam ne sharia daf ko daganal ci fan lañ ko teg su ko defee mu des avant ñuy dugg nag ñu dem ci wàllu médecine nga xam ne ci wàllu xel la ñuy àtte ba noppi soogu dugg xool cigarette bi nga xam ne nit nga koy tax nicotine bi ciy nekk mooy lan luy nicotine ñaata produit chimique ñoo nekk ci biir cigarette quatre quatre quatre mille éléments la ñu composé cigarette boo gis su ko defee nicotine ci science boo demee CH H 14 N2 la ñu koy symboliser mooy dix atomes euh, yoo xam ni de carbone moo ci nekk quatorze atomes hydrogène moo ci nekk deux atomes d'azote moom moo ci nekk moom euh, nicotine bi kese Jean Nicole.

bu njëkk bi faible dose bi moom nicotine lan lay def mu ni dafa am benn effet stimulant bu ci nekk mu ni lan lay provoqué dafay wax ni dafay provoqué mu ni augmentation mu ni euh, de la pression artérielle lay njëkk provoqué moom nicotine boobu bu xase ba dugg ci nit en plus rythme cardiaque bi nekk ci nit nicotine bi daf koy développé daf koy yàq te day rey nit indi yi nga xam ne par exemple moom la nicotine yoxe ci tënk pour gagner suñu 30 minutes yi nee na ki koy jëfandikoo nausée da koy dugg palpitation day dugg ki nga xam ne da koy jëfandikoo nicotine bi maux de tête muy siffale day dal waa ji nga xam ne day jëfandikoo nicotine boobu insomnie ki koy jëfandikoo dootul nelaw guddi te trouble mental la koy indil jaaree day daw biir moom cigarette bu nicotine bi demee ba dose boobu nga xam ni mooy surdose bu demee ba ëpp ci yow noonu la lay def lipothymie da koy def moom te mooy malaise euh, euh, vertige lourdine étourdissement extra yooyu yëpp nicotine bu ëppee ci doomu aadama da koy def dafay def hypersalivation nit ki dana dem ba dootul mën a téye ay tiflitam te nicotine bi bu ëppee ba surdose noonu la lay def dana aussi indi li tuddee Euh, cancer de poumon léegi ci xel bu ñu demee ci yi ñu wax léegi nga xam ne yépp day rey nit benn bu ci nekk day yàq organisme doomu aadama bu ko xel nangoo ni comme lii day yàq xel waroon na ko mën a dàq alxuraan nag bi ñuy soog a jàngal aay yàlla wax ni bu leen dugg ci lëpp loo xam ni alkande da cee nekk wala loo xam ne daf leen di yàqal xam hmm? naa carte jaune yi moo tax borom xel nag war ko nangu ku am xel laa am nag moo tax moo ko àtte xel Euh, boo gisee wax àtte xel maa ngi koy nettali dafa am benn dof xam nga dof ñaaree xel yi xel du am xel am ku dee ci koñ bi ndeke moom dof bi ñoo bokk tur bokk sant maanaam bokk koñ bi ñu dëkk bi ñu tuddee turam waa ji dee rek dof bi yaakaar ne moom la ñu dof bi taxaw nangatul avancé ñu wax sant bi rek dof bi toog bi ñu waxee koñ bi rek la dof bi tëdd na commencé yóbbu. dof bi xalam ko 30 bi ñu téye ko muy jooy ñu ne ko lan la noppil mu leen damaa xam ne suñu waa kër dañ maa bañ rek maa ngi gaañu depuis démb ci heure bi ñu dema ko nëbb ba léegi ci jàkka ji laa dégg tàggal waaw moom yaakaar na ni ki ñuy tàgge moom eh, léegi nag maanaam douze éléments yi nga xam ne tabaa indi na ko te mooy ay poisson bu ñu ko fi filmé ñu pare mais dafa mel ni projecteur bi prépare nañ pour loolu ci كي دم سري حاج مالي بس داي فري القران بام ياغ سي ندار مولن سوبا دينا غات ماغ ندار ييب توك سري حاج ماي ني سوبا دينا غات تي فري سوتو سافار بي نيب توغ ماغي توك موي فري بام ياغ موني ادالك خير النزلا ام سجدت زقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجر تخجل في أصل جحيم تلوها كأنه رؤوس الشياطين دم يسيت آجر تروح البيان سري حاج ما يتخوه zaquum xob bi mi ngi am côté him moom ak pon ñoo nuroo benn xob mu ne xet gi boo ko sànnee ci safara day xasoo xet gu naqari la am sëñ dugg ci détails yi di ci dugg xajul ci détail bi ñu toog mujj gi mag ndar ni ko Maodo billahi yaa baax te gore te yaru da ñoo bëgg a wax sigaret araam na rek te xamoon nañ koy waxee képp ko yoroon gën na tey na ko dóor ci mu toj te xam ne sëñ Hadj Malick ni yay nañ néew fa sax naan leen sigara araam naag yooyu aay ji leen indi rek wax leen sajot zaqum mooy lan ak saxaar sa ca nekk ñoom ñëpp ñu nangu ni que sigara araam ñun ñu toj see di gën bala ñu ñëw ci wàllu ñu ngi sharia spirituel pourquoi jawharatul kamal boo gisee tarixa bi di ko bañ xam nga jawharatul kamal ñu bëri xamuñu baatu kamal bi lan la ci wut xool juróom-ñaari bunt la am sept bunt sept bunt yooyu mooy waral boo tollee ci juróom-ñaari kër jawhara ñu ne la sayyidina Muhammad ak sahaaba yi dañuy teew am na jawharatul zikri am na jawharatul shawqi am na jawharatul mahabbati am na jawharatu sirri am na jawharatu ruux am na jawharatul maarifa am na jawharatul faqri juróom-ñaari jawhar yi ñooy poor yi nga xam ni moom la xolu doomu aadama buy tudd yàlla di di yëngatoo di tëb di dal booy tux cigarette turu yooyu da koy bouché kenn mënut a tax nga jaruñu moo tax si Ahmad Tijaani boo demee ci Kashful Ghuyum fi baadi asraari xutbil maktum li salaaxu diin mi ngi ci Égypte Ousmane Ndiaye ñu xam na ko gisante naa dundandoo moom mu igaasaal ko bind na ci ni si Ahmad Tijaani am na benn taalibe bu mos a génn àdduna bi mu génne àdduna ñu koy so dafa feebar sukuraat ñu koy wax loo baatu ashhadu an laa ilaha illallah mënu koo wax bi mu sonnee ba sonn ndeke ñu yëg ni danaa jëfandikoo cigarette keroog la Cheikh Mer ni leen bis nag tey kii moom bu ko kenn jëfandikoo ko muy cigarette boo demee ci Ibris bi Abdou Aziz ba am na ci taalibe boo xam ne ba ñu ko lëmasee ak tàngaayam la ko sëriñam xool la mu daan tux nekk ndox di xelli ba tooyal mbalaan ñu ko sànga mu ne kii moom ndegam lii mooy génnaat ci moom kenn mënut a moo tax Abdoulaye ibnu Tahir yonte bi sa danaan gis sidna Muhammad saa sallam mu laaj ko waaw nan nga gis si loolu saxaa soof suñuy waxtu xaan mu ne ko hiya xaraam mu ne hiya xaraam mu ne hiya xaraam ndax sidna Muhammad mi ngi dund ak ñun ba léegi tant bi sidna Muhammad mi ngi ci ndax shahidana aleykum la yàlla wax moo ñuy seede ëllëg te bu nekkoon ci tataa jataay bi tey ëllëg du mën a seede suñu jataay bi ñu defoon fii ci ngor fa kayfa idaa ji'naa bi kullin bi shahidin wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa yow yaay seede ñii ëllëg mu joy ko mu seydina muhammad motax tax nag mu ne yaquluuna laa nasa lana fa wallahi qad ja'u bi aadami firyati taa yéba nee na amul yah mu ne nar yu gëna a ñom nar nañ ko mu ne mu ne nag fa kayfa wa ahlul ilmi qalu bi man'iha kama takruhu fi fununil adillati mu ne ñëpp nda indi nañ ni lolu haram legi nak mu def bo delo ci usul xam nga usul dafa am lo xamni bo ne boo ci alquran ci usman jaay xam lu usul do sa yaay amul fu ko alquran tere jàpp sa papa dóor ba mu tëdd benn place wala sa yaay dóor ba mu tëdd amul fu ko alxuraan waaw kenn du ko ku ma ko indi ci alxuraan ma kaal dóor sa yaay amul ci alxuraan waaw léegi nag pourquoi lu amul ci alxuraan rek xaraamul usul moo lay lijjati moo naan la yàlla nee na la wala taqul lahuma uffin bul wax sa yaay ak say wajur ëf usul ni ëf day metti xol dóor day metti yaram di metti xol waaw ku lay tere luy metti xorom boo ci boolee luy metti yaram du ko gën a tere loolu la ñu tuddee ci matière usul al mantuqu wal mafhumu alquran bi lay wax loo xam da koy wax ci yax bi ak loo xam yaa koy dégg ci biir dañu nekk ci aan ca daara ji benn waa jigéen jóge États-Unis ni pourquoi ngeen di dóor xale ci daara ji wan leen ma ban xadis la yonent bi diglee dóor xale ak ban aaya la yàlla diglee dóor xale su ngeen ko génnee rek ñu xam ne dóor xale ngeen dóor ci daara ji ci daga mu indi problème na yàlla def ñu natt comme doon nañ nar na bi ci usul ma ñëw fekk ma ne ko yow ñu yaa xam li ngay wax non arabe yi usul dafa ne al musbitu muqaddamun ala al manfi kii saxal moom la ñu war a njëkk déglu koy daal yow yaa ngi wax fan la alxuraan téere dóor xale ñu bàyyi dóor xale gàmm ki tere gàmm moo lay wax man addis la ko yàlla yi mais yow mii gàmm bu ko wax man addis la ko yàlla da ngay sonn amu ci mais ki ko tere moo lay indil ni lii lañ ko teree ma ne ko yow yaa ñu wax fan lañ teree dóor xale bis na ko tey kenn dootu dóor xale mun ma yow damaa bëgg ñu nekk ay waay mu ne ko ah loolu de moom mën naa ne yàlla ni wa anfaqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla nee bu leen dugal ci seen loxo bu leen dugg ci lu leen di alak waxuma fii léegi yi nga xam ne moom la médecin yi bind ni moom mooy rey ci kees gi dañ koy bind ab dangereux dañuy bind ni ci kees gi ni dafa danger la ci sante doomu aadama moom cigarette Australie instant yi politique bi ñu dañoo dañoo programmé xeetu cigarette yëpp nañ bàyyi tur yi te defal wutal ko benn tur wutal ko genn kees dessin ci bëñ yoo xam ne boroom bu yàq bëñ ya yàqu na pour ñëpp xam ne cigarette dafa bon Allemagne aéroport boo dem sëñ am mi xam ne damay wax dañoo bind ci gaar yeeg métro yeeg yëpp ni tere nañ ko fi tux waaw loo xam ne nag ñoom ñoom ñi xam du ñuy julli sax tere nañ ku ko jëfandikoo ca seeni place nga xam ne loolu baaxul nit looy def te bu la ni bette nga nëbbu ko rek loola baaxul yàlla nag wax ni xoolal am na benn aaya ñaari aaya ci alxuraan pour wax la ni saa yu foog nga dem ci alxuraan yëguloo ni alxuraan kese boo ko jëfandikoo sax boo moytu dem safar ak xadis kese parce que dafa am loo xam ne alxuraan da ko bind mais ñaari aaya daa ñëw aaya jee alxuraan yàlla muy wax ni ku sa jëkkër dee na nga tijji at beneen aaya ñëw ne ku sa jëkkër dee na nga tijji ñaar ñaari weer fukki fan mais soo jàngul ak naasixu wal mansuux ban ngay ban aaya nga ci jël foog nga xam ban aaya moo folli morom loolu amul ci alxuraan bu la wax ni aaya bi fu yàlla folle na ko aaya bi usul ngay jàng ñun la aaya ji moo folli aaya ji su ko defee li nga xam ne nag moom lañ ci indi ci ci ci nga xam ni eh, bu ñu ko doon tudd fii du jeex Ousmane ñaata waxtoo ma def xam nga waaw mu ni am na mbokk yu fi présenté ay euh, statistiques yoo xam ne ci wàllu euh, cigarette la léegi léegi ñu delluwaat ci yaa jox alxuraan yàlla nee na yes alunaka maada uxilla lahum yàlla neen lan lañ daganal ci yéen xul uxilla lakumu tayibaatu wa maa allamtum min al jawaarih yi tey yi la leen yàlla daganal ni al yawma uxilla lakumu tayibaat wa taamu lazina utul kitaab كون تي يتي دغان لغينا مو غنا لير نك الذين يتبعون يتبعون يتبعون الرسول النبي الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث mu daganal leen ji tey waaye araamal leen yi nga xam ne xabisa la xabisa nag boo ko firee ci sharxal téere yi mooy lépp loo xam ni dafay indi lor ci yow lu bon la xet ga neexul ka ngay dendal xetam neexul ci dafa la yàqal ci àdduna bi ci des mooy kii tux cigarette Seydi Hadj Malick sëñ Babacar Si daf ko laaj ca Ndar lee te téere bi maam xabis si bind si radox jaxwaan ma nga ca mu ne ko loo xam ci imaamu raatib buy tux cigarette Seydi Xaaj Maalik ni su ma ko xamee man Maodo avant mu may jiite du ma jiite su ma jiitee ba pare ma soog a xam ne day tux ma baamtuwaat sama julli sëñ Babacar Si moo ko laaj Seydi Xaaj Maalik dox na ci ndar ci Mauritanie benn jigéen di ko àbb almet pour tux mu ne ko waa maa maana naaru lëtti tasal yiniha wala nahnu surab du subara ba duxaani axal xobxi walakinana nëx jët tijaani naqtafi wala xayra illa fi itibaa'i dawil fatxi ñun tarixa cheikh duñu tox duñu laal sagara walaysa lanaa min baadi maa qaala cheikhuna illaa ida ma bada ida ma bada xawlun si wa darbi wa sabxi lu cheikh wax ba pare ñun nii lañ cay def kenn koy wax leen dootu ñu la dégg sëriñ xay maa ngi indiwaat na ci yeneen bayit cheikh saadu abi yi nga xam ne daañu wax sax macim cheikh saadi bi doomam sëtam alwali doomu cheikh at xaana ñuy fii ci Dakar ni ma sama maam bind na ci ay bayit ci cigarette wane ni baaxul yàlla def ñuy gëstu bay de ba gis ko Cheikh Saadu Abihi nii las naa nu salli billadi yasummu law kaana nafauhul wara yaummu kala wala li man tambaaka yaj xamu li anna naa naalam wa huwa yaalamu bi annahu fisqun wala karama wala shahadatan wala imaama Cheikh Saadu ni ñun du ñu jullee koo xam ne yëg nañu day tuux donte law kaana foofu la war a yaa umm donte am na ñu koy wutal ak njëriñ kalla wala li man tambaaka yee ji xamul kuy jëfandikoo tabaa ndax neen bi ana naal boobu yaalum xam nañu li mu def baaxu nii di baaxu Muhammad ibnu Baaba Mahamda Baaba ni wa kuruhuhu la dal lawaamii ittarax wa ayu naq layel kitaabay ni asax wal mubtali bi osbati duxaani in la njëtuf fa xatabu niiraani taraahu antanu ibadallahi xalban yadan tawban bila tanaahi mu ne loo xam ne day yàq tuñ di lakk loxo di lakk sa yére nee na kooku kenn mënut a tudd ak daganam su ko defee ñu ñu tuddal leen ay turu téere yoo xam ne ca la nekk parce que liñ ci gëstu ci téere mën na fukk ak ñaar bu ñu ko doon bëgg a wax duñ fi jóg mais ku dem ci isaabu rafiq wa buxyatu sidiq fee xelli mat ni su la mi tawfiq ila mahabatillahi ala tahqiq حبيب عبد الله بن حسين عبد الطاهر على علي موقع دف في شجر لي حرامل الزواج عن اقتراف الكبائر مو نيك 70 على اك اي عيب دنگ واخنا تي سيغار بو ديمي تي تبصير الاخوان في بيان اضرار التبخير المشهور بالدخان محمد بن عبد الله الطرابيشي مو موكو ديف بو ديمي الايضاح والتبيين في اثبات تحريم الدخان دنگ ارامل نكو وقول الجواهر الحسن في بيان حرمه التبغ المشهور بالدخان اندنا نزول المالك والمملوك في تراجم مشاهير الملوك لشيخ محمد بن عبد الله الموقت المراكشي موقتال قمه شهوتي عن تناول التباك والكفتة والقهوة شدع على موقتال العقد النفيس في نظم جواهر التدريس تسير الله احمد بن ادريس المغربي فتوى علي المالك moom it sëñ Babacar Abone ba mu demee tënga ñu jiitaloo ko àjjuma mu leen mag ñi ma jiite fi ñuy werante xel ñaar mu ni leen ma jiite fi dem leen indil ma fatawa alis ñu àndal ko ko mu ibbi ni leen xool ma dox waa ñu sañ naa xam-xam baa boo demee ci nasru asraarul bashariyati min tawaayal axlaaqil muhammadiyati ci muhammad moom moo ko indi fa haadi na mbaam rooma ko mu ne gars yi téye leen ma mbaam mi ne jàpp leen mbaam mi gars yi jàpp mbaam mi mu ne sangal leen ma mbaam mi gaa yi sang mbaam mu ne watal leen ma mbaam mi gaa yi wat ko mu ne mbaam mi tuubal naa ko léegi sax léegi sax wutal naa ko beneen tur tudde naa ko xar pour rek affaire bi dagat su ko defee loolu kàddu di jéggalu ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu